ab xew-xew bu tiis am foofule ci Kaolack ginnaaw benn camion malien boo xam ne dafa dal di mbëkk benn moto Jakarta teg ci ab taxi loolu tax na ba ndaw ñi fare foofule euh, daal di am aw sàññ ci ki nga xam ne moom moo jëf-jëf ji ni mel tax nañu daal di def aw ndiiraan mbooloo mu ngande ngande di yàqate ay camion yoo xam ne ay camion malien lañ yu taxawoon foofule ci boobule parage loolu nag ci centre ville bu Kaolack la amee jamono ji ñuy wax ak yéen foofule ca Kaolack yëf ya tàng na jër police ak gendarmerie daal di nañuy wàcc ci yooyu la barab ngir mën a fexe nag indiwaat ordu bi ci niñ leen koy woowee ñoom nag jamono jile foofu le ca kaw Kaolack ndaw ñi ñu ngi wane seen ko sàññ ci ñi nga xam ne ñooy camion malien yooyu ginnaaw bi mu defee jëfam jooju le mbëkk ab moto Jakarta teg ci benn taxi loolu tax na ba ñoom ñuy wàcc di saccagé ak a yàq yenn camion malien yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku foofule lii mooy li ñu demeeku ci boobu lépp information